di gunal day garam di way ak sant soxna si ñépp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bégal nga àddina wóor na yaa nu jox say xi bamba jaara ma jaara jaaratullaahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak may soxna jaara

wursu sellaay nas takkal ko man jaara mi ma gis jigéen jamiin yoonu aras moo tiim jigéenu xarnu bi mooy yaay xaadimul xadim bigil na yàlla may karim buso yow wa jaara laa yariime du jeex ay busa jàngal nga maayu xarnu bi moo yaay xaadimul xadim bigil na yàlla may karim iwam wa maam jaara laayareem bi jeex jàngal na xarnu bi xaran na gaal tàngal kafe moo tax armuwaal du jafe moo tax ñëpp ambu dikk fii jaara sigil na jaara xarnu bee yaara bi juddu yaa gorte yaa ami may maam jaara di wax nag liggéeyam bu tedd bi nag rek moo noo ndif Porokhane ñun jigéen ñi ñoo ngi jéem a roy maam jaara roy giñ koy roy yal nañ ci yàlla jàppale yal nañ ko sunu borom nungul ci barkeem ñu roy ko góor góorgóorlu yàlla defal ñu ci sutura ñuy def nag waaju Porokhane gi ñuy waaj at mu jot yal nañ ko waaj na gën a ak déwénaati jéeg yal nañ ko fekke ñun ñëpp bu ko kenn wute luñ ci ñaan nag. ak lu nu fi sàkku rek yal nañu ko yàlla nungul ci barke maam jaara bu sa sant nanu ko waaj nañu ko waajal nañ ko fas yéene koo màggal ziyaar ko di fi sàkku ñaan lu nu fi ñaan yal nañu ko nungul ci barkeb Sidina Muhammad jëwriñ maa ngi lay siyaar di la jox sa wàccuwaay di ñaanal jullit yi fi tase ñëpp yàlla yonent bi defal leen tawféex jëwriñ daayira bi fa mu sosoo ci Daaru Salaam ay kilifa ñoo nu ko sosal bañ nu ko sosalee ma ànd ak sama mbokk yi di ko dox di ko wax fu mu gën a rafetee noo nga koy dox noo ngi koy dox ba kër sëñ Moussa la ni ñëw dal lépp loo xam ne lii war na ci daayira noo koy doxal ci sunu daayira bi lépp loo xam ne lii daayira nga koy def noo ngi koy doxal ci sunu daayira bi ngir yàlla yonent bi ak jëmmi maam jaara rek nun maam jaara dong moo nu ñor maam jaara dong la ni noyyee maam jaara la nu bëgg lépp lu nu man noo ko koy liggéeyal ci daaru salaam man maay jëwriñu daaru salaam muy soxna ndaag ba maam jaara nag ku dugg poroxaan jigéen ju dugg poroxaan rek sa xol neex na ndax maam jaara jigéen ju dugg poroxaan sa xol war naa neex ndax maam jaara nun de bu ne yulub poroxaan xamatunu lenn lu nuy def xamatunu lu nuy wax lu may bëgg a daw ñëw ci maam jaara siyaare maam jaara di sàkku ci maam jaara ñaan di sàkku ci maam jaara barke yal noonu maam jaara defal barke defal nu xéewal ci sunu daayira bi sunu daayira bi nag dénk nañu ko yàlla yonent bi ak sëñ Muntaxa ak maam jaara yal nañu ko jàppal jërëjëf jërëjëf. jërëjëf soxna jaara moom la ñuy liggéeyal moo tax nu ñëw Porokhane moom la ñuy roy yàlla noo ngi ñaan ci kattanu sunu borom mu ama jaam jaara bu sa miinu di ko roy. kontaan nañu lool kontaan nañu lool gis nañu maam jaara tubaarkàlla macha allah gis nañu maam jaara li mu def ci dëkk bi gis nañu li mu liggéey. kontaan na nañu ci yàlla noo ngi roy ci moom yal na nu yàlla defal jàmm ba lu ñëwaat fi ci jàmm ñibbi ci jàmm fekk jàmm. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Seydina Mohamed di wax jërëjëfe soxna jaaratulaay jëfe soxna jaaratulaay jaroo lakke maam Cheikh la Fall jërëjëfe Serigne Touba ñuy sant nag rek di la siyaar yow jawriñ ndax bu la fekkee ngay liggéey liggéey bu rafet bi soxna jaara ñun jëwriñ lañ la mën a def kon dañ lay siyaare rek di rafetlu sa waaj toogaay bi nga nekk fii yal na la yàlla ak yonent bi ak soxna Jaara Fay ñuy fas yéene nag ànd ak suñu jëwriñ ji rek di liggéeyal soxna jaaram mu jiite nu nag mot njiit sëkk nag dawut randuwut bu nu defee mu def sunu defut mu def àndal ak ñun rek di liggéeyal soxna jaara nuy ñaan ci màggu yàlla ak naa Seydina Muhammad barke soxna Jaara Sulaay bu weer wi déwénee yal na lu nu moon ren lu moon déwén lu ko raw ñëw indil ko soxna jaar ndax ñu soxna jaar rek la ñuy liggéeyal xoolunu gisuñu dégguñu dañoo gumba tax lu rek ànd ak soxna jaara moom rek la ak yonent bi ak soxna jaara kese lañu xam amuñu keneen ñuy sant nag rek nag tey gërëm maa ngi jóge Ndanda Fall côté Ndanda mhm. maam jaara Diagne dëkk Mbeer mhm. Ah, màggal gi macha allah sama turandoo moom ñëpp xam nañ ne kenn du moom ah, màggal gi macha allah nit ñi bëri nañu lool te ziar bi moom tamit neex na ah, ñu ngi ñaan lépp luñ fi ñaan yàlla na ko suñu borom bi nangu yàlla def ci réew mi yir yërmande te barkeelal ñu suñu njaboot gi ci barke Soxna Jaara te jigéen ñëpp jéem a roy ci moom rek waaw jërëjëf. Euh, yoon yi xaw na xat tuuti yoon yi xaw na xat waaye sant yàlla soxna jaara jar na ko euh, xëy na tàng na xat na waaye lépp ni ñu koy def ci jëmmi soxna jaara ji ta xam ne moom ba mu fiy nekk lii lépp melu woon ni te tarawul woon mu nekk fi ban yëg-yëg laa am ci moom a ah, soxna si bëgg ko rek bëgg ko rek tey roy ci moom bëgg ko roy ci moom te xam ne jigéen ñëpp royukaay lañ ñu war a def ci moom waa yëg-yëg bu sori lañ am ci moom ak yéene ju bari sax nag ah ñu roy soxna jaara ñu roy ci soxna ndax moom royukaay la nanu roy ci moom ndax jàmbaar la jàmbaare islam la te benn jikko bu ñu roy ci moom rek baax na ñàkk roy ci moom rek moo wóorul. waaw maa jóge Ndande Fall di ñëw di siyaare si maam Diarra Bousso ah di di di ñëw pour siyaare si maam Diarra Bousso ah yàgg nañ ko bëgg a siyaare waaye tey la ko yàlla dogal. ah ku fi ñëw nag tey wax dëgg yàlla kontaante rek dañ fi def kontaan nañ macha allah ndax màggal gi neex na ah macha allah daal màggal gi neex na. bu sedd ak kontaan rek sama xol dafa sedd mënu maa wax ndax kontaan nañ suñu xol sedd na waaw xanaa jéema rek ci maam jaare bu sa nag ndax maam jaare bu moom royukaay la moom jigéen ñëpp war nañoo jóg roy maam jaare bu sa ndax maam jaara bu sa moom royukaay maam jaara bu sa moom jëfam kenn du ko naatam la ci Sénégal. Ah, asalaamaaleykum mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay ah man nag man maay maam bu sa mbay maa nga jóge ba kër mbay faal te li ko waral mooy soxna su sell si tëdd fii di soxna jaariyat kooku mooy génn jigéen rek am màggal gi kookoy yaayu bàmba di yaay ñëpp muy sunu royukaay ñu koy ñaanal sun borom yàlla yàlla nañu yàlla taaf ci barkeem ci barke Seydina Mohamed mu jaral nu nag fajaru jaral nu topp guddi gi jaral nu topp xaaju guddi gi moom soxna Jaariyatu ñu koy ñaanal yàlla nañu sun borom yàlla taaf ci barkeem muy royukaay nag di royukaay ñuy ñaan yàlla nañu sun borom yàlla xiirtal ci moom ba nu roy ko ci barke Seydina Mohamed. maa ngi si ci fajar soxna jaara jaral ma ko nag. muy génn jigéen gu ab màggal gi di royukaay soxna su sell soos yaay xaadim doomi sëriñ Salim Mbacke jooju ñu koy ñaanal yal na ko suñu borom yàlla taaf taaf ñu ci barkeem ci barke Seydina Mohamed bi mooy sama ñetti màggal waaw yëg-yëg rek yëg-yëg bu bari ak yokkute barke Serigne Touba soxna Jaara moom bu woote jigéen ñi dañuy falax falaxi soxna jaara bu soññee jigéen ñi dañuy fala-falaxe ndax mooy jigéen génn jigéen gu am màggal gi jaral nu lépp nag jaral nu lu ne kooku day royukaay kooku yaayi góor gu magga di xaadim rasool ahmadou bamba bàyyi sëriñ saaliw mbàkke maami so maami soxna moomi sëriñ saaliw sëñ tuuba góor ga deman gaba jaar maa yombe jaar biro ba ca ndar te musul ni wooy musul ni fu ma jëm kon sàkket du ñàkk aw barala mooma may sama xarala ko fi gis mu naan caralaw daama ko may taalaale ni ko sàkket du ñàkk aw barala mooma may sama xarala ko fi gis mu naan caralaw daama ko may taalaale nee ko soxna moomim sëriñ saaliw bambay sa maam sa jëmma ma wayloo te wayloona ku ne yaayi mam marim caat yaay jant bu dul soox yaayi bay seex yaayi leeru weer wi sant soxna maam jaara buso boo màgga gi yaa jigéen ju na bëgg nga ko yoo na si kenn mënul ne moom moom moom kenn dongoo te du am moom soxna maam jaara yaa nan ko yaa ko kon daan ci màggam gi ci soo ba na ngeen si kenn bëgg kan ko ne yaa ngi ñàkk bëgg waa jeexi ñoo ci màggam gi ndax bëgg a yokku ba yëpp ko yaa nan suñu doom yaa wa yokk li ñaan ak yokkute rek yaa nan ko bu maam boo màgg gi def waxa na nag góogóo naa liggéey waxa saayu nag boo fas yéene doon moyta baay faa fas yéene yoo ci maam jaara buso waaw yaa nan ko yaa wa suñu doom defar jaara moom dañuy jéem a ay takk neeram a jaar rek waaye soxna jaara moom li mu dund noonu xanaa rek dañuy sàkk ci barkeem di ko ñaanal ñun màggal gi daal man yëg-yëg gi ma ca am ndax xam naa ne sept ci suba lañ fa jógoon ba sept heures ci ngoon waaye man damay mel ni man maa ngi doog a dugg ci oto bi ndax lépp xam ne maam Ndiaye moom li mu daj ñun xalaatuñu koo daj ba looloo tax man maa ngi jógee Pire ci kër sëñ Touba gi bi ma wàññee samay carte biig bi may fan fanweeri carte ak juróom ñett xam naa ko ci yi ma ñëw te am na yoo xam ne booba amaguma carte maam Jaara Bousso ñu ngi ñaan suñu jigéen ñi kenn ko ne li ñuy liggéey nañ ciy liggéey di ñëw ci kër maam Jaara Bousso gi di ci sàkku te jëkkee ko ca suñuy borom kër nag jëkkee ko ca jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. di sant yàlla di julli ci Seydina Mohamed di sant Cheikh Abdou Lahad ak Serigne Cheikhouna sama wasila di leen góor-góor lu laxasaayu sant yàlla bu wér bi nu yàlla bindee ñu di ay murit di ay jullit mu boole ñu ci xeesu Seydina Muhammad dégg nga ñu bokk ci waa kër Serigne kon jaamu yàlla bu wér moo nu war góor-góor lu di roy ci maam Jaara xam ni maam Jaara ay caaxaan may ko lii kenn ku nekk yaa ngi laxasaayu góor ak jigéen. di roy ci maam jaar nan góor góorgóorlu fonk sunu diine fonk sunu sëriñ fonk sunu kër gi nga xam ne moom lañ yàlla booleel. di sant nag soxna jee ndax moo ma booleel sëñ Moustapha Imaam ñu dalal nu sunu dara jeexul yàlla nañ fi tase déwén luñ fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu. télé bi yàlla na ko yàlla yokk ci darajey Serigne Touba darajey Soxna Jaara bu dëgër ndéwéne yàlla na ngeen yokk ba yëg ko wasalaam. a bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi di sant suñuy ñaari waajur ñu ngi sant Serigne Touba bu baax di sant maam Diarra bu sa borom Poroxaan nga xam ne kéemaan yu bari mi ngi ci maam Diarra nag barke Serigne Saliou kéemaan yu baree baree baree bari mi ngi ci maam Diarra man nag damay wax sama bopp rek te xam naa ne am na ñu mu defal lu ëpp loolu mais ci xaanu ren jii dama ciy wax ay firnde yu garaaw barke Serigne Saliou bi ñuy waajal ñëw poroxaan rek ci jour bi benn jéego bu ma dox ne damay jëli ci bagage maam jaara barke yonent bi fu ma taxaw ñu jox ma addiyee maam jaara bu ma di gàddoo bagage ne maa ngi dem jëli ji nangam ci maam jaara su ma fa duggee bala maa génn te du ma laaj xaalis de bala ma faa génn ñu jox ma addiyee maam jaara ba mu doy nag barke Serigne Saliou ñu yegg si ma ñu ñuy jaayante ji ca ca teen ba ma ni man teen bi tey jii gis ko rek ak sama bët laa bëgg ndax sama bët yi daa neexu te damaa bëgg mu neex yàlla dogal ba ma dalee màggal si ba tey tey ji laa mës a tiim teen bi tey jii laa mës tiim teen bi gis ko barke Sëriñ Saliou ma tiim teen bi macha allah jukki ñaan nag ñaan fa maam jaara bët yi na leer di ñaanal nag képp ku fi indi aajo yàlla na ko maam jaara bu sa borom poroxaan faj te gis nga borom màggalu a ren gi barke Sëriñ Saliou dina wuuteeg yu bëree bëri lépp lu fi waay aajo bu fi waay am na ko fi wàcce dina faju ci kàttanu yàlla ak baaxam di ñaax nag sama moroomu jigéen ñu jéem a mel ni maam jaara yombul nag waaye nañu jéem a mel ni maam jaara ndax mooy génnu jigéen gu am màggal gi yàlla nañu yàlla def jàmm ñun ñëpp def ñu ay murit def ñu ay taalibe Serigne Touba def ñu ay ndongay maam jaara ñuy liggéeyal maam jaara rek wasalaamaaleykum wa rahmatullah ndax suñu yaay ka daan def tey ji ñu nekk ci ko jaayante yàlla nañu yàlla def ay waa kër maam jaara barke Seydina Muhammad taw aajo fi waa indi yàlla na ko maam jaar faj tax dégg na ko nag xam na ko dinañu ko fajal maam xam na maam xam na dina faj di ko nal day garam di way ak sant soxna si ñëpp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bégal nga àddina wóor na yaa nu jox say xi bamba jaara ma jaara jaaratullahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak léegi ko may soxna jaara